alhamdulillahi alkarimi silmilan alastihadi bi furudin wa sunan sakartuhu qad saxani li watani bihi nafa ma anfani moo sunu net mooy lu ñu suivre moom la Baye Fall yëpp di suivre di ko bàyyi xel waaw barke borom Touba di ko bëggee bu baax ñi ngi ñaan nag mu yokk waaw yi gën a kawe si di gën a yaatu waaw barke borom Touba saxub Touba saxub Touba saxub Touba yàgg leen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 barke Cheikhul Khadim jërëjëf Serigne Touba eskey Serigne Touba borom Touba mu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk fa nga nekk noo noo ngi la fay fekk ci sunu xol ak sunu làmmiñ di la jox sa wàccuwaay di nuyu bokki senegal yëpp. dikk nag tey di ñaan yàlla sunu borom boole nu jéggal waaye lu ko jiitu nag noo ngi baalu ñépp àq góor ak jigéen mag ak ndaw di ñaan yàlla boole nu jéggal teg ca di ko sant cantu xol ak gug làmmiñ fas yéene koo booleeg cantug jëf te cantu jëf gi nag mooy lii wane yaa ngi sant ci jëf mooy sax ci ndigali suñu borom yi bàyyi tereem yi loolu mooy firndeel cantu jëf ak yeneen noo ngi ñaan itam bala noo ñaan li nu baaxoo ñëpp xam ko mooy ñaanal cheikh Mouhamadunil Muntaqa mii fi taxaw tey ñu koy xoole xaadimu rasul muy xalifatul am li taifat li taifatul muridina li tariqal diina noo ngi ñaan yàlla lu ko neex rek lay def moom mi nga xam ni moom ni ma leen ko waxee mooy alxalifatul am li tariqatil muridina yàlla bàyyi ko fi lu ko neex rek lay def noo ngi ñaan yàlla yàggal ko fi boole ci li boole ko ci li ko neex tawfiixal ko may ko wér ak tawfiixi zaahir ak baatin ba li mu yéene ci toolu lislaam bi ñu dénk Serigne Touba mu def ko te nu ànd koog moom saa su nekk te ñaan yàlla mu dëppoo ak li nga xam moom lu sëriñ bi bëgg muy ngërëmu Serigne bi nu dal ci ceeg moom tey nag noo ngi nuyuwaat ñépp fii ci Touba Mbacké al di ko waxe ci sàqum tuuba seetu murit yi eh, yàgg na lool déggu leen waaye nag nekk ci waaru biir rekk moo tax ak wax yu bari lool nu ni tekk di déglu rekk ba yeete munute ñàkk waxees ca ñu wax ca lañ ca war a wax bii nag tey lu ànd ak jàngat yu jëm ci jamono ak tolluwaayam réew xëy na dina ko nuru waaye bokki taalibe murit yépp leen bëgg a laa biire suñu bopp laa biire leen ak bépp jullit boo xam ni yitteel na la kon muy diir bu yàgg nu dellusiwaat siwaat ci jataay bii tudde ko jataay bu murit saadix di ci waxtaan bokk yépp ay ponk yu bari nag walla ay poñ wala ay point yu bari lañ bëgg waxtaane kon nu ñaan rek li tax nu di ko def mu yéene rek ak nab nabi ci liggéey sëriñ bi ci anam yépp rawatin nag ci laa biire sunu bokk bopp ak sunu bokki taalibe yi bokki julli yi bokki sénégalais yi te yàlla wax na ko léegi bi may tàmbali de ngeen li mu wax kuntum xayra ummatin nee na xeet yëpp yëpp yëpp nation yëpp yéen leen gën yéen jullit mi yéen leen gën yéen a ci gën ndax lan ndax dangeen di digle lu baax di tere lu bon loolu moo tax ngeen gën fa dakkir fa inna dikraa tanfaul muminin fàttalil ndax fàttali dina jëriñ ku gëm ku gëmul nag jël tooxal moom kon lii yëpp moo waral lii lenn rek ci tool bi nga xam ne ñu ngi koy bay di ko jéem a bayal sëriñ bi lii lenn rek la ci te loolu xam ngeen ko lu dikk rek di tey wax ak ñu nekk ci réew mi ak ñu bitim réew ñëpp eh, jëmale ko ci mbokki taalibe rawatina dafa am lu xew ci jamono muy soppiku jamono ci wàllu communication ak média nuy dégg ñu bari di wax am ñoo xam ne xëy na man bari wax mën na leen tax wax euh, bëgg wax mën na leen tax wax bëgg siiw mën na leen tax wax xaalis mën na leen tax wax loolu ñiy jàngat ku ne di nga xam di nga xàmmee mbir yi yoonu murit nag jamono ji ñu toll na ñoo xam ne mën nañ leen tuddi al murjifuuna fil madina al murjifuuna fil madina euh, am na ñoo xam ne ñu wax pour semer la zizanie duma leen du ñuy murit dama naan ay murit lañu kenn ku def Sëriñ Tuubaa moo lay seereel si murit nangul la ko waaye di tuddoo murit ba noppi di wax yenn wax yi ak yenn comportement yi loolu fi nit mën a yem ci xalaat dana toog bu baax xalaataat kii mooy kan li ci jit nag mooy jël sëriñ bi ak yoon wi ak ki fi nekkal sëriñ bi di ko jaxase ak politik di ko politiquer mel ni yoon wi ngay liggéeyal te liggéeyal la yoon wi politique ngay liggéeyal loolu nit ñi xam nañ ko maanaam ñi soriwul njàng sax te mën def analyse de discours xam nañ ko di politique yoon wi jël sëriñ bi ak jëmm yoon wi ak ki fi nekk sëriñ bi ak lu ci aju di ko politique mu mel ni da ngay liggéeyal sëriñ bi te liggéeyalu sëriñ bi mel ni da nga koy da ngay liggéeyal yoon te liggéeyaloo yoon wi loolu constaté nañ ko te du mën dong ndax li tax mooy ci benn domaine rek lañu jël dem ba exporté maanaam importé li nga xam ne mooy événement yi nga xam mooy xew ñu ñu ñu ñu importé ko jël ko dugal ko ci biir mel ni yoon wi nag léegi fa la wax jëpp nekk léegi politique bi sax moom amatul luñ ciy wax dañ koo jël dugal ci yoon bi ba. lëkkale koog loolu ba mbir mi mel ni sax yoon bi rek rek rek moo tax wax ji jépp di am muy loo xam ni ñi ñi ñi ñi nga xam ni ñu koy def waxam naa nag ci benn wax ni leen saa yu may wax tudd moom tur néewuma diw néew ma sàmba su ma waree tudd tur damay jaar ci digg fa waaye léeg-léeg ci communication dinaa la xamal ni la waxuma kenn laa waxalul sama wax ji waxuma kenn waaye képp koo dem ci biir sa digg sa sa conscience tranquille nga toog ni xanaa kii man lay waxal jàppal ni yow lay waxal waxuma kenn waaye ku jàpp ni yow laay waxal xamal ni yow laay waxal keneen ku dégg wax ji itam jàpp ni diw laay waxal xam ni diw moomee lay waxal kon loolu leer nañ ndax am na lu fi xew ci yoonu murit lii bërki dem la rek média réseaux sociaux yi mais bërki démb la rek ci lépp di jaar di am ni mais ba télévision yi doonee ñett rek rajo privé yi doon benn wala ñaar rek ana ñuy wax léegi fu ñu nekkoon ana ñuy défendre yoonu murit fu ñu nekkoon waaye loolu sax sori na biir réseaux sociaux yi bari dëgg-dëgg am na fi événement yu xew yoo xam ne wax nañ fi sëñ bi loo xam ne wax fi sëñ Mountakha wax fi wax fi lu lañu dëgg te kenn déggu leen wax nañ fi ji lu ne ci yoon wi attaque yu ne te kenn déglu loolu nag li tax ma di ko wax mooy lu fi xew lu ne ci yoon wi ba ñuy jóg taxaw du ma maa ngi jiitu waaye maa ngi maa ngi maa ci maa ngi ci kanam ñu ànd loolu moom dooy bàyyi ko ne seereel ko sa bopp kon lu tax loolu yeneen domaine yi ñuy attaqué yoon wi ak ñeneen ñi daan attaqué yoon wi loolu kenn déggu ci kenn ba léegi léegi ñuy dégg loolu loolu ayul sax. mën nañ leen soog a dégg léegi waaye nañ leen dégg ci anam bi ñu leen war a dégg waaw kon loolu lu mat a bàyyi xel la ay dépassement xew na fi jëm ci yoonu murit contre le mouridisme ay dépasse dépassement ci ay wax ci ay jëf ci yu nekk jëm ci Tuubaa jëm ci kilifa yi kenn déggul kenn kenn déggu leen te loolu bu ci nekk mën naa ko wàññi dépassement yooyu bu ci nekk muy xew biir Touba wala biir Ndakaar wala ci réew mi fu mu fi xewe mën naa génn benn benn mën a biyeeg biyeeg bii kon loolu te ba muy xew noonu taxawoon noonu teg suñu bakkan am te kon bu mën a jaay suñu bakkan ñañ koy séqal sax mënuñoo jël suñu bakkan jaraluñu ko dul seen morom doyuñu sax waaye bu ma ko waxee rek mooy boo jaraloon noonu suñu bakkan ñeen ko séqal it xam nañ ko bu baax ñoom ñeen ko daan séqal xam nañ ko gë doy ñu am nga lax di ko benn bi toppaat mooy li ñuy wax ci réseau sociaux yi mboolem ñuy wax ba tax ñuy ŋàññ sëriñ si ma def loo leen attention damay laaj loo xam ne ay millions ay millions juróom benn bu juróom-ñaar bu juróom-ñett ay million am ci loo xam ne mat nañ un million ay sëriñ ay kilifay diine sëriñ nga bëgg nag bu benn waay jógee wax rek nga daal di généraliser sëriñ sépp def leen ci benn mbuus waaw parce que booba yow nekkuk sëriñ bi ak mbirum yàgg na laa naqari te amoo ci pexe boo déggee nag ku bokk ci yoon wi kàddoon nag mel ni kooku da ca da da da ca àndul nag yow loolu nga doon siiw pour jóg nag daal di maasale sëriñ sëpp ni sëriñ amatul ñëpp ñu bon lañ kenn baaxul mu ne mbooleem am na de boo jëlee millions yi ma la tudd sëriñ soosu nga tudd sëriñ si yëpp mën nga ne xëy na am na ci téeméer wala ñaar téeméer wala ñett téeméer wala ñeent téeméer yoo xam ne xëy na li tax li tax ngay wax yow dëgg la ña ma nga ca ñoom waaye boo jëlee juróomi téeméer rek nangu loo jël 7 millions wala 8 millions xam ne ñoom ñi ngi ci lañu ñu war a nekk bu kenn tympanis si nit ñu bu leen bu kenn jéem a nax kenn maanaam bu benn sëriñ defee erreur rek wala mu def njuumte rek wala mu def loo xam moo ko tey sax ñu jël sëriñ sëpp ni léegi ñoom ñëpp nag nii lañ mel déedéet sëñ bi nit day ragal yàlla wax ngir jëm yàlla pénurie sëriñ du am ci réew mi mukk mukk mukk mukk ceeb mën naa ñàkk suukar mën naa ñàkk diwlin mën naa ñàkk waaye sëriñ ñàkk du am mukk li am kay mooy sëriñ sa nekkul ca lañ wërta sëriñ sa xam ne nekkuñu ca lañu war a nekk ñu ngi ci perte nga pert perte bu rëy parce que dongo yi ñuy def taalibe yi duñu def danañ dafa bàyyi yow bu ñu la ko waxee bu bi la ko dem ci beneen sëriñ topp ko na ko sëriñ Tuubaa digle woon kon seen la loolu ñuy nekk di ko def seen défaveur la waaye boo duggee waaw la nga dugg ci biir réew mi bis bu ne nga taw koo xam ni mën na laa xeeñ yàlla dana la xeeñ yàlla wala mu xeeñ la sëriñ bi kañ la yonent bi ci tege ci fi mu war tege am na nag ñoo xam ne mën nañoo bokk ci yoon yi bokk ci famille bokk ci di bokk lépp waaye ñu mel noo xamante ni bi ñooñu loolu ñoom la concerné kuy waxati nag yemal ci ñooñu mais bul généralise bul taam ñi loolu ko nañ ci bàyyi xel baax baax am na nag ñoo xam ne yàkkamti lu dul kenn jóg maanaam kilifa def erreur wala mu def njuumte wala mu def lu mu wërta def di benn sëriñ wala ñaari sëriñ wala ñetti wala fukki sëriñ mu ne lii rek laa doon néggandiku daal di jóg nag maasal leen lépp boo leen ci biir gis ngeen sëriñ si gis ngeen tas waa tasawuf gis ngeen nangam nangam lu lañu yàq leen ko te fekk na yow ki def bu deen téeméeri di téeméeri di dong la waaye boo bëggee lu baax la sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma doon wax ni benn waaye ko doon wax ni la boo bëggee murit bu baax bis bu ne junni murit romb la te doo ko wax waaye kenn romb la di tuddee murit di murit ni murit laa nga xool leen murit bi li ak bon te téeméer yu baax romb nañ la te waxoo ci benn junni murit yu baax ni lay romb di def lu wax bu dégg bu di jaamu yàlla di wéetal yàlla teg ci teg ci alxuraan sunna te doo ko wax benn benn yi ci drapé rek ngay wax moo wax leen leen nañ def ndànk max leen max leen doucement ndànk-ndànk ñooñu def loolu dañoo jàngul histoire histoire réew mi parce que yooyu ñuy def di ko jaaree ci médias yi muy guerre de la communication pour détruire pour déstabiliser pour semer la zizanie benn bu ci su sotti du am bu ñu jàngoon histoire Sénégal xam dëgg-dëgg nan la société bi composé woo danañ xam ne loolu du continuer ti nekk. lii nga xam mooy dal yoon murid nag. luy dund lu ne il faut mu amul mel noonu wax naa ko junni yoon poste Mouhamad Diène yonent bi mu fi jógee rek bi mu fi jógee fa saas rek la pucc xoo am di la yi fi jaar yëpp Umawiya Abbasiya Seydina Aboubacar ñey ba asaka ni dul ma ni lii da yoon murit nag bu fekkee ne day ab taaw ci lislaam buy mel nii di ko day dal ku am am njàngat te am ak seetlu du la déranger da ngay ànd ak dal xam ni lii lépp lépp lépp lépp lépp du wàññi yoon wi dara bu ñu waxee tey bi gën a bon tey bu subaa na beneen génnal dama ne loolu ngay wax yoon murit naan am ñoo xam nag tekkiwuñ dara di toog ci plateau naan dans l'histoire du mouridisme lii fi am crise bi musta am am ci ñoo xam ne daanaka sax euh, mën nga ni doo doo doo xam ne lu di tudd daal tekkiwuñ dara waa léegi ñoom xanaa jànguñu histoire l'islam li dal l'islam du dal yoonu mu ma ni l'islam yoonu mu taaw la ci yoonu yoonu taaw taawu l'islam la bi fi Seydina Muhammad lan moo xew jàngal leen ko xale yi ak jeunesse bi yéen ñu wax ci réseaux yi lan moo fi xewul lu garaaw ci biir l'islam ba ba jusqu'à nos jours tey jii ba tey jii ñuy tuddoo jullit di def yoo yoo xam ne fii xatlu nafs rey bakkan weddi ji nit ki weddi yàlla lu nañ di ko def dama leen di yéen ñi jàngul lislaam te soriwu ci réseaux sociaux yi ñuy waxe dem leen ci biir ngeen gëstu taarixul lislaam mooy l'histoire de l'islam ba fi yonent bi jógee rek ba tey jii lan moo li fi xew lépp ci lislaam loolu jegewul benn ba doom xewul ci yoon murid benn ba rek xewul ci tarixatul muridina bu mu nee nag foofu amul séparation li ma la wax mooy ñi nga xam ne ñoo jox seen bopp sëriñ bi jébbal ko seen bopp àdduna ak àllaxira ngir jëmmi yàlla ak yonent bi mu teg teg seen tànk fa yonent bi tegoon tànkam ñooñu la ñuy tuddee al ñi bëgg a dem ci yàlla waaw kon li ma wax fii dinaa fi yàgg lool mooy maa ngi laaj yéen ñi wax ñëpp ak kuy déglu lii ku la waxati ne ko dama bu fekkee jàngal histoire nga wax ma histoire islam lan moo ci am ci ay ay ay jafe-jafe ginnaaw bi fi yonent bi jógee ba léegi. bu la koy wax fii ba ila yow du di du jeexal kon loolu ne ko ñëpp xam waaye nag euh, domage ci peuple bi dul xam histoire walla du revisiter histoire du ñëpp de ñoo xam ne jànguñu histoire gëstuwuñu histoire duñ ko revisiter duñ ko xoolaat lu gën a doy war loolu amul ma dikk nag ci mission njabootu Cheikhul Khadim maanaam xalifa bu fi toog bu ne am na mission buñ la assigné ñun buñ ko xamee buñ ko xamul te boo ko tàmbalee ci Cheikh Moustapha sama turandoo ba léegi boo ko xoolee kenn ku ci nekk dafa mel ni bi nga ñëwee dañ la ne lii lañu la def loo jëmal ci lii nga def ko ba mat sëkk tànk ginnaaw tànk kanam la am ki ñëwoon il faut mu defaat fi loo xam ni ka fi nekkoon du ko fi defaat loolu sëñ bi sëñ bi waaw loolu mooy tànk kanam yi day ñëw def fi loo xam ni ña fi jiitu woon defuñu ko loolu mooy lan mooy sëñ bi moo amul tànk ginnaaw tànk kanam la am noonu rek la demee Cheikh Mountakha bi mu ñëwee dafa am domaine yu baree baree bari yoo xam ne da ko laalandoo macha allah xalaatam yépp teel naa toog gulet moo toog wax boppam ni kaay leen ma wax leen sama bopp dem ba egg ci di ko dem ma dem ko demul ma dem songandoo yu bari nun nu gis université bi gis jeexu Masaalikul Jinaan gi ci loxoom di la jeexee ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu baree baree bari mais sëñ Mountakha ci mission bi mu yor ni bu fekkee ni nit yaa ngi jàngat yoonu murit bugg ko dugal académie di ko xool bu ñu doon def ak ab jàngat am na leneen loo xam ne mission daanaka loolu ñu bari bàyyiwuñ ci xel te loolu la gën a doxal mooy lan keroog bi Cheikhul Khadim sosee yoonu mu ca Mbàkke Kajoor ba mu jotee ndigalu sunu borom na Cheikhul Khadim doon doxe ak mag ñu baax ñoo ñee sëñ Muntaxa dafa ñëw fekk ñi fi nekkoon doon ko def waaye mu amaat ci nag loo xam ne ak yeesal goo xam ne daa mel ko def bokk na li gën a loolu ci la mu jël jëmmi boppam moom mel ni ku koy saraxaat Sëriñ Tuubaa mayaat Sëriñ Tuubaa joxaat addi boppam Sëriñ Tuubaa bëgg nit ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp xamaat kan mooy sëñ Tuubaa bëgg nit ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp doy na waat sëñ Tuubaa jël xalaatam yi discours am yëpp di delloo si positif ba mag ñi doon dund ak àll dañ daan nekk sëñ Muntaxaa di ko xam xaw ma seetlu ngeen loolu ndéet ak taarixul asil keroog ba yoru murid juddoo ci originam ci jëf ak joxe ak jëfe ndigal yooyu yëpp yi nga xam ne yoon la mu yoon mu moom la judduwaale woon moom la moom la tàmbaliwaat mu mel ni ku koy dekkalaat moom deewul sax waaye mel ni kuy fëgg giriñ yi pour mu gën a yànj buy wax boo koy déglu bu lay wax ci sëñ Tuubaa da nga naan menn mag mu toogoon sëñ Tuubaa ca mag ñu jëkk ñoom moo toog di wax bu lay woon cofeel gi mu ko bëgg da nga naan kii tàggoon ak sagoom bu lay wax ni mu bëggee ñu doxee ni ñu topp ñu toppee ko sëñ bi da nga naan kii nekku fi da koo yeesalaat bëgg nit ñi ci fefam li mu ci jub mooy nit ñi dundaat loola keno yi ko sosoon maanaam keno yi sosoon keno yi sosoon yoonu moom la tàmbaliwaat te dinaa ñëw leeral benn dinaa ci indi benn mu leer bëgg ñu topp sëriñ bi nan ko waroon na ko mag ñi daan toppee bëgg ko na ko mag ñi bëggee woon mooy ci moom ci modèle am ak méthode ñu mooy ci na nga xam ne na na la mag ñi ngoye woon ci méthode sëriñ bi ak méthode am na mu doon doxale nañ na ci mag ñi ngoye woon ñu ngoye ci noonu loolu la yeesal al manhaju al asil alladi yanbaas min al min al qurani wa sunna ah al manhaj al asil alladi yanbaas min al qurani yaakaar naa ni lii ku ne war na cee bàyyi xel xam ne sëñ Muntaxa indi na ko dem na ba waxtaan wi yëpp buy wax dañ koy jiij ab daanukat buy wax ci sëriñ bi du am du ànd ak te mag ñi loolu lañ doon def waaw mag ñi loolu lañ doon def kon loolu dañ ci bàyyi xel moom day yeesal doxinu yoonu murid ba mu sosoo nu mu doon dundee lay yeesal boo ci génnee ndigal ñaati yoon ngay dégg bu joxee ndigal te yoon wi ndigal la ko sos ñaata yoon ngay dégg mu joxe ndigal loolu rek foofu la ñu taxaw ci ndigal li ci mujj muy baabul muridi ne mi nga xam ne buntu bi yoru murid mooy maam Cheikh Ibra Fall kuy dem ci kay jaar mu woote benn bis vingt quatre heures vingt quatre heures vingt quatre heures yu mat sëkk mu woo maam waa kër maam Cheikh Ibra Fall ànd ak ñoom ñu toog ñuy zikkar boobu mi ngi joxe signal fort ne leen attention maa ngi dekkal faraxati njaar démb maa ngi koy dekkal ñu woote bi mu fa woote woon maa kër Cheikh Ibra Fall ñuy ñuy zikkar vingt quatre heures sëñ mu ndaxaa toog ñëpp di zikkar boobu mi ngi leen doon dellu si leen attention yow naa ngi dellu si waat min ëwali ayam yi ca bisam jëkk ya jàppale ni jugaat na yeesal jot na ñuy sikkar di sikkar vingt-quatre heures sans non stop ñu dem ba ci yàgg ñu ni ah sëñ bi di yeesal na yoon ndax waaw kër moom seex mu ni déedéet naa joxe beneen ndigal mënoon naa woote ay société wala woo ñëpp ñëw mu woo ma kër Cheikh leen gaar bii ñuy dem lekk dikkali guddi bëccëg li ci xew laa bëgg mu set wecc na maase muy deuxième ordre ak yi ko jiitu woon ci ndigal ak yeesal ñu ñëw maasale gaar bi nga dem fa mel ni lii ndax nit ko def wala bulldozer mu ñëw ci ñetteelu ndigal te bokkul rek loolu nag yoo xam ne yu ordinaire yi koor yeeg yeneen ndigal yeeg suñu am di xadifaal feeg yooyu bokkut yooyu bokkuma tudd ba yooyu maanaam yi nga xam ne da koy da koy da koy jox xalif général bi am bi loolu yëpp ci yeesal yoon bi bëgg leen war leen lawoon fa woon nawoon fa woon ay ca Touba ñu toj fi am na benn déglu biir bu ñu fi defoon ci Touba dindi corniche bi muy locc locci ñu defaat fii lii dindi bàyyi dindi bàyyi mu xam ni yeesal jot na de ku yeesal da ngay jaar ci maam Cheikh mu woo xalif général bi mu jox ko ndigal xalif général Baye Fall jox ko ni ko dëkk bi yëpp fu fi dara nekk fu dul kër gi ñu rëddal borom fa mu yem na deñ ci corniche bi ñu tàmbali ci loolu marché occas noonu nga xam ni ku fi gëj boo ñëwee Tuubaa tey ku fi gëj boo ñëwee Tuubaa juróomi fan yii boo moytul li nga réer ndax fi nga daan def xàmmikaay fi ngay jàdd naan moo doon sama xàmmikaay bu soob yàlla dootoo ko xàmmi loolu am mu jóge ci ci yeesal gi mu yeesal ndigal yi ak murit gi joxe gi ñu war di joxe mu woote mu jëmmaa complexe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul pour l'enseignement bi muy université bii ñii ñii di ko wax université ñii di ko wax lu ne muy mu jëmmaa complexe complexe la parce que complexe mooy loo xam ni xeet bu nekk ngi ci biir lu ne dañ ko ca fas yéene jàngale ba ci ay métier ba ma yemoon foofu rek mu doy na ngeen xam ni kon li ma bëgg a leeral wax dëgg yàlla ku am bopp te amul xel xam nga sëñ Muntaxa fi muy woote boole ci nag mu soppi ko bëgg a doon taalibe bi ñëpp far maanaam sëñ Muntaxa bëgg a doon taalibe bi ñëpp loolu du ma ci commenté ñëpp xam ne ko ku ñëw mu bëgg a doon sëb taalibe yow te ñëpp di taalibe loolu yaakaar naa ni du jar sori mu jox ko nag ñañ ndigal muy waa kër maam Cheikh Fall mais ci bonne façon lañ ko exécuté na maam Cheikh Fall doon daan exécuté daan daan defe ndigali Serigne Touba ni la ñi la Baye Fall yi defe ndigali sans bavure lu àndul ak coow abnégation volonté détermination engagement ñëpp du boole ko ba baat boo yàq rek jëlal dogu gi pastif bi ñàkk gee sonn way gi lépp ñu boole ko ci def ko ci defe ñu gën a rafet ndigal yi fi jaar yëpp ci biir ndigal loolu sax daa ci lu xew loo xam ni li ma ni sans ba amul coow àndul ak benn coow am na lu fi xew lu tuuti muy ku ñuy wax noobal xaw ma nu mu tudd nan lañ koy wooye ñu jot ko bàcc bàccal lakk oto foofu dinaa fi bala maa fàttali li ma xalaat mooy yéen ñi nga xam ne yéen taalibe yi murid yi ngir yàlla màggalu Tuuba ak xew-xewi murid yi ak Ndakaaru lu dara xewate rik ñi leen di tàllal ay micro du ñëpp nag ñi leen di tàllal ay micro di leen pose yenn question yi boo dee murid da ngay woy suñu la posé benn question bi nekk ko yow ñu koy posé laaj naa la ko wala nga ne mu day am fayda te am bopp te yeewu waaye jàkkaarlu bi naan ko ndax yow oto bi nga lakk oto bi lakk kon d'accord nga ci dinaa ko yow lakkal sa yow wala yow ngi ndax da nga koy laaj ni ko may laaj yow naa ndax kenn ku ne xam na ni ki jëf-jëf yi li tax dum sori ci mbiram toog na ñëpp tuub ñëpp dégg mu tuub jégglu mu mel ni natt bi dafa jaar ci kawam pour joxe woon benn leçon boo xam ne pour futur ci kanam la maanaam noobu daa mel ni natt bi daa jaar ci kaw muy ab dogal boo xam ne mënut a bañ ci boppam pour léegi nit ñi jàngee ci ne ah sëñ Muntaxa yeesal na démb kat ndeket duma jógu fi ba tey duma yéen daan duma léegi ku nekk Ndakaaroo ku nekk bitim réew ku nekk ci réseaux sociaux yeeg na nga xam ne léegi mbir am na lu xew yeesal duma am na waxuma lakk lakkat ñi nga xam ne ñoo ci profité di wax ay droits de l'homme nangam nangam dañ ko war a lii dama leen di laaj entre les de droits de l'homme et droits des hommes xëy na boo nee droits de l'homme ñëpp nga ci jublu mais bu fekkee ni droit de l'homme benn individu la concerné muy noble nga ne ay droit am waa noble moom droit droit de droit de l'homme mooy mboolem mboolem borom yi yi nga xam ne yëpp yëpp wax na yëkkati na wax joo xam ne jaaduwul mu jëmale ko ci borom pas yooyu yëpp ñooñu seen droit boo boo ko nattalee droit de benn nit nu muy doon droit individuel et droit collectif kee individuel la xëy na am nay droit nee nga dañ koy laajal droit waa léegi droit collectif bi nga xam moom def na ci lu mu ci war def nag wax ci lu mu ci war wax kenn jàppalu ko rek ndax tuub na jégul na dañuy dañuy dañuy leer rek waaw dañuy leer rek waaye moom bu fekkee da koy meral wala nga naan du yoon na dëkk bi justice nangam nangam waaye léegi bi bi mu waxee wax jooju mu wax dañ lay laaj bi loo wax yow loo wax ci wax jooju. ci ko xam ni dëkk bi tëdd ak ni réew mi tëdd ak ni yoon bi tëdd sociologiquement bu fekkee jàng nga du sociologie la wax wala nga jàng diine boo xam lan mooy pas-pas ak état bi nga xam mooy lay la fan la teg pas lu mu wax ci pas-pas lan wax ci pas-pas kon loolu yaakaar naa ni euh, di ci wax heureusement moom comprendre na ko moom noobal ba nit ñu ci bëgg a jaar ba defee ni yaakaar ne dinaa ànd ak ñoom lànk naa tuub naa jéggalu naa xanaa war a gën a noppi nag kon li ma bëgg leer foofu rek mooy toj lu bon judduwaat na toj lu bon bu ne toj lu bon nag du wax ju ñaaw toj lu baax moo baaxul waaye toj lu bon baax na nit ki la mu bon la nga toj ko dara nekku ci toj lu bon toj lu bon judduwaat na loolu nag na ko nit ñi xam leçon la boo xam ne ci lii xew ci marché Ocass lii ñu bàcc bàccal noobal lakk otom keneen ku ne war ngaa bàyyi sa xel ne ah ndekete na defoon lii jeex na ndekete jeexawul loolu daal ak yeesal la bu nit ñi bàyyiwul xel waaw ku weddi nag continuer rek message bu foor la jëm ci sénégalais yëpp jëm ci nag waxaaliwu nag yoonu murit ak ñi dëkk Tuubaa message bu foor waaw ni leen bàcc bàccal jógu fi ba tey nit pas-pasam da koy egg foo xam ne dëddutul moom boppam bu fekkoon ne justice day atte te xam am na yenn ñu atte yoo xam ne bu ñu xoolee dañu xool nit ki kii bi muy def lii état bi mu toll ban état la woon ak am na ñoo xam ne ku leen saaga rek ñu ñu ñu ñu dukkal nag wax loo xam ne daanaka aw saaga la ci mbooloo boo xam ne ay téeméeri junni nit ay millions lañ la woon na. ñàkk warma gi ak yeneen yi eh, loolu mën naa ñàkk ak foo ma nekk ci réew mi nag kon yoon mu li mu judduwaale woon dikkaat na natt nag daa jaar ci kooku léegi du ñëw ci beneen tomb bi mooy lan Euh, Cheikh Mountakha dëgg dëgg dëgg dëgg nit ñi dañoo am lu ñu umpale ci waxtu wi nu Sëriñ Mountakha di Mountakha di fàttalee di fàttalee naan dem leen dellu ca jàngukaay ya ak daara ya muy message bu fort jàngale alxuraan jàngale majaalis jàngale xam-xam yóbbu gone yi tarbiye leen dellu si ni leen baatin bi fi la nekk waaye zaahir saa Zahir si mooy lii ma leen wax léegi rek. kon nan dellu suñu bopp. kon nag nañ delluwaat ci suñu bopp. li ñu sëriñ bi bàyyee. li ñu sëriñ bi bàyyee. ñu am xel mu dal ci baatin bi. ñu am xel mu dal ci baatin bi. jóg na ci Zahir. na ci Zahir. nañ jóg suñu bopp. nañ jóg ci suñu bopp. tegu ci yoonu njub. tegu ci yoonu njub. alxuraan ko ci kaw yëkkati lépp défensé ko lépp. noonu yëpp noonu ci ci njaboot leen jàngal ci yoonu jub. teg leen mooy milliards yi nga xam mën na koo joxe léegi ñu tabax ci ab université mooy nga jëf loo xam ne waroo koo jëf ah zahir lañ ko zahir lañ ko lijjantee waaye am na ñoo xam dañuy tuddee murit mais ay ignorant lañ xamuñu histoire wala jàng nañ histoire wala nanguwuñ ko wax yaa imaa nga ñàkk xam wala nga nekk am naafiq wala jànguñu histoire mouridisme dama ni ba murid nekk mille cent deux cent trois cent quatre cent mille cinq ba tubaab bi def seen rapport naan tuubaam googu yi ci Bawol am na fa juróomi am na fa juróomi téeméeri taalibe rapport baa ngeeg man ci mbirum ndar bañ koy àtte nan tuubaam googu ci bawol rek amagul na fa lu tollu juróomi téeméer taalibe juróomi téeméer la de juróomi téeméer ñoo mën a taxaw défier toute l'administration coloniale à travers leur positif leur engagement aqida ak gëm-gëm gañ ak doyloo gañ doylu sëriñ bi ak bëgg gañ ko bëggati yàlla tax ak wóolu ga juróomi téeméer nit ñoo taxawoon di défier l'administration coloniale ñu ne bu kenn dem ci yéen ñuy jaar fii di dem ci yéen par force mën naa mën naa ci tudd ay tur par force bu leen dem ci yéen ñuy dem ci yéen ñu dem ba ci yàgg ñu lay ko cinquante personnes lañ la may ñu ñëw ci yéen waaye yéen ñi nga xam ne yéen wax nag ci affaire li ñuy lëkkale ci politique ak dëkk bi ak sëñ bi yu mel noonu ak it wane ni maanaam dafa am loo xam ni ay nit la ñoo xam dañuy yëngu ci diine salafiste wala wahhabi wala ko mën aw ma jot googu sax. man yow nga di murit ba pare man ngaa imaginer toog yow mën ngaa imaginer yaakaar nga ne kon fi mu toll yow yaakaar nga ni jamono man naa dem ba nit mën a ñëw teg fi benn loi boo xam ne dana dana dana dana troubler yoonu murit kon yow pas-pas ba mag ña amoon amu ko man defe naa ne bakkan bu doon bu doon jaay fi mu toll dañ koy jaay boobaa man dund ma googu murit murit gi may dund mooy waxuma Tuubaa de waaye lu ci bokk. ku laal ñu rëq sa digg man la mag ñi dund laa laa dund waaye yow mi bokk ci yoon bi nag jàng kon xamoo histoire bu fekkee ne yaakaar nga ni benn benn benn idéologie mën naa ñëw ci biir réew mi ba ñëw def nekk nekk fi dominer dominer dominer ñi fi nekk ak tariqa yi mu dominer leen ay nit wala nga yaakaar ne ak président mën nañoo dem ba fal président boo xam mën naa toog fii ci biir réew mi di diriger nu ko neexee ci wàllu googu ni lii dama koy effacé yow mi wax loolu ka koy wax nekk ko yow ci boppam yaa woyul doo murit ndax boo doon murit war nga am jom ju toll na mag ñëpp jom dañu doon kenn dong sax ñu jublu ci yoon wi war ngaa jàpp war nga ko mën a faj waxantu wala ngay 9 millions cam man murit bu ma gisee murit ba naan ah moytu leen ah, nangam nangam bu ñëwee dañ toj xabru yi dañ def lii ma ne cam cam waaw bu ma gisee bi wax loolu ak di ko théorie loolu moo xam ni kon loolu wax ji am na leen ko tax jóg wala nga xam ne moo boo comprendre yoon murit wala du murit murit buy jàpp ne yoon bi warees na cee mën a def dara te noonu nekk fi yaakaar Sëñ Tuubaa boobaa yow muy waxtaanee loolu man gëmatuma la gëm naa ne yow xamul Sëñ Tuubaa wóoluwoo ko doyluwoo ko waaye itam wóoluwoo sa bopp nag ko wóoluwoo sa ndax jàpp naa ne yoon murit ku ci bokk ku ne jàpp nga ni tey lu ci jëm si jàpp ngeen sa bakkan yi sa bakkan yi te fii gisuma fi lu fa mën a dékku yoonu mu ci réew mi Afrique laa la wax kon lu tax ñu bëgg a tukki rek jóg ñu déedéet nañ def nangam nangam ñoom bu ñu ñëwee lii la ñuy def lii la ñuy soppi nangam waaye loolu bu ma bàyyee yoon mu di sax ku jàng sociologie naa ko bàyyee professeur ñoom sa jibi jaxate so am sa saw siribe ñooñu mais nag am na lu ma ci jàng mais sociologiquement man li ma jàng ci société sénégalaise la na société bi bi li ma jàng mooy ay ay ay ay ay ay xeet lañ yoo xamante ne bii ay nit lañ yoo xamante ne bii bu fekkee ne xalaat nga ni nit mën naa jiite réew mi ëllëg ba ñëw imposé fi ni leen diine jii ngeen di doxe wala nii ngeen di doxe wala lii dañ koy bàyyi boobaa kon ba tey xamoo histoire boo ma demalee wàllu jaar Kajoor jaar Saalum jaar Jolof dugg Saalum dem bëj Saalum bëj Gànnaar fu ne nga dugg nga ni ma ñooñu ay nit dama ne loolu benn non seulement peuple bi mais armée na armée Sénégal ci boppam ab président bu fi mosoon a toog ba xalaat ne yow di nga am doole wala nga am sañ-sañ bu tax nga fekk liñ fi gëm ci diine te muy diine yi ñu war a gëm muy alxuraan ak sunna jaar bi tasawuf nga ni président laa dinaa ko changé boobaa ngay xam luy Sénégal sociologiquement laa wax su fekkee jàng sociologie. boo xoolee ni Sénégal composé wu ku yaakaar ni benn armée bi ci boppam nañ defar Morsi ca Égypte Morsi na ko Égypte na ko armée ba def président bu koy def noonu loolu bi def man maa wax loolu waaye eggul foofu même armée bi bu jógoon ni moom ànd naa ak président ba boobaa kon xamul lu lan moo composé ko armée boobee la leen composé kon xamu ko l'armée bi armée bi la leen composé kon moom xamu ko bu xamoon ñi leen composé laa kon xamu ko kon loolu man duma ci dewaatu mukk benn yoon murit ñàkk ñu fay dem ñooy ñi nga xam ni Sëriñ Tuubaa ne def leen saxaaba yi seen nawle roxamaa bay na waxuma alxuraan nag arab lay làkk rek waxuma aaya waaw kon noonu yi ak kenn kuy jóg ab daf wax de yomb na ci réseaux sociaux yi wala nga taral lu nga def waaye boobu wallaahi lazim am na loo xam ne ñi koy wax sax dañuy làq buñ ko waxee ba def dañuy wéet ak ñi ñuy waxal dong ni leen xoolal dañuy wax dong kat waaw réew li bët mag ñi bëgg gi bëggoon sëñ bi li wajjillahi taala ak jëm yonent bi ñoom ñoo défier toute la France ak armadaam bi mu yoroon ci jamono colonialiste ci wàllu pensée sur le plan économique sur le plan religieux ak seen aqida ba seen fastif ba seen dogu ga laa yaxaafuuna lawmata laa'imin dara mun leen fees seen bët ginnaaw France nag moo feesul seen bët te boobu mutuñu mutuñu cinq cent mutuñu cent mille personnes waaye waaye bu ñu matee huit millions bu ñu fi toogee di ragal nan France gi ñëw wala nit nit waa nit yi diine sàngam yi ñëw dinañ def wax dëgg yàlla boobu murit bu koy wax ci benn nit la dégg xam nañ yow déggoo murit te xamul histoire te am na leneen loo tax di wax waaw lu yoonu murid laa wax sëriñ Tuubaa laa wax bu fekkee xam nga sëriñ bi te xam lan mooy yoon wi waaw waaye nag nañ fàttaliku ni nafsul xulub xol ya nekkoon ca mag ñi moo fi nekk doom ya nekkoon ca mag ñi ñoo fi nekk taalibe ya nekkoon ca mag ñi ñoo fi nekk ba tey kon naka ngay nekkee bu murid di di di imaginer naan dinañ dem ba ci yàgg ñii dinañ ñëw daj xabru yi wala ñu def lii jële fi tarixa nangam nan ngay nekkee murid di xalaat loolu man gëwuma la man waaw bu fekkee nan nga yaakaar ne ay nit mën nañu ñuy tiital mu yor murid wala déstabiliser leen ci force bu mu mën a doon boobaa yow mi koy wax ak di ko théorie Euh, c'est boo ñu xam ne yow ñi bu nga ne am nga xam-xam amu ko dellu ci li tubaab wax le mouridisme constitue la plateforme sur laquelle se bâtira la forteresse de la conscience nationale Jean Coffin beneen tubaab waxaat ni le mouridisme est machine infernale et pour le moment je ne vois pas qui pourrait ndax des na ko gis ci àdduna si ab tubaab ñaari tubaab ñuy wax lii kenn ki nee na conscience nationale saa yi am ci Sénégal ci yoonu murid dong lay jógee conscience nationale xam sa bopp xam sa bopp moom sa bopp keneen ka ni ko murid yoonu murid nag fi toll machine la boo xam ni lépp lu taxaw ci kanam dina la daj te man gisuma ku ko mën a taxawal ci jamono ji ndax des na ko gis ba ko tubaab yi te ca tànk loolu la ñu waxoon machine infernale et pour le moment je ne vois pas qui pourra l'arrêter kenn ko le mouridisme constitue la plateforme sur la se bâtira la forteresse de la conscience nationale mbokk yi euh, nun xoolaat li ju wax nun xool fi jëm loolu moo am solo loolu moo am solo yoonu murit li mu tal leneen la li nu war a tal fi mu toll mooy dundalaat majaalis jàppale dara yi alxuraan yi yeesalaat dëkk yi sañ sañc la woon ak ñam ko sañc la woon ak fañ sañc dara amatul guu fi mu defe nañ ni mbo mbogo mbogo mu ci ko déedéet guu dëgg dëgg dëgg mooy lu jafe xoola jamaan yi jafe xaalis jafewul am na ñu koy am ak yeneen ak yeneen ak yeneen yépp yow li jafe mooy moom sa bopp xeexi sa bakkan dellu ci yàlla sa borom mag ña nañ toppee woon Sëñ Tuubaa sax allahu akbar man de jaaxal na ku ragalul colonisateur ak i ak i ak lu ne mu yor ko yore fital yore fital ragalu ñu toog ba jëm jamono ji nit di wax naan nañ ragal diw walla diw bu ñu dinañ def loolu dañ def lii boobaa yow mii murit man waxuma kële dara yow moom lay wax yow waaw loolu lañ ci bàyyi xel bu baax baax baax fi may jeexale nag mooy du ma ne Modou Aïcha Mbacke ci tur wi laay jaar li nga wax du dëgg te giñ naa ne maam borom saa Mamour Diarra li nga wax àndu ceeg yow. Mamour jaar borom Sàmm ñu bokk sëriñ bi lépp àndu tegi suñu Xaadim Mbàkke conférencier bu jógoon tey fa mu tëdd ca barsàq yàlla na yàlla yokki leeram moo la moo jëkk dal si kaw te surtout Mamour Diarra moo du ay sa Mbàkke xanaa xooloo Mamour xam sa diine ñu mu siggali maamam borom Sàmm yow ant man ba ngay dem ni sëriñ bi ñi ko topp tëfewuñ ko woon gën leen sellu julli wala gën leen sellu jaamu yàlla loolu du dëgg te boo gisee muy yëkkati sa kàddu gii dangaa ngaa jëkk wax wax ju amul teggin te dina nga jàng nga téere sëñ Tuubaa bari xanaa nax ju bokku ci nax ju bokku ci yi nga jàng xanaa te bokk na ci yi ñuy jëkk jàng sëñ Muntaxa nga jëkk taxaw wax ni mbir mii ñuy wax mbirum xaw ma Sonko ak fekkee sëñ bi ci dugaloon bu fekkee sëñ bi ci dugaloon boppam wala bu ko ci dugalee maanaam sëñ mu taxal lu tax nga bu fekkee moo ci dugaloon boppam ba ma ko déggee laa ne waaw kii kan la dama dugal déglu sax ñu ne moom mooy ma ne ah kii de def na erreur mun mu taxal yi taxaw wax naan bu fekkee moo ci dugal boppam wala ak njabootu dugal ko ci xoolu jooju wax ju ñàkki tëgg ñu bàyyi loolu tëdd fekk man maa ngi ci waaru biir ñu defati ba ci yàgg fan yi nga jógati naan sëriñ bi ña ko toppoon toppiwuñ ko woon gën leen sellub julli wala gën leen sellub jàmm yàlla naan doon waa ibaadaat naa faaxat ibaadaat xëy na bu ko keneen weddee yow mën nga ko wedd yow laqad sabaxta ala laqad sabaxta falaa yaxfa ala ahadin illa ahad illa ala ahadin asxaaw mawlahu la ko naar yox yow bu ko keneen weddee mën nga ko wedd yow ñàkki teggin mu taweesu loolu li tax ma tudd suuf tur jaar ci yoon nag ñii ma wax Nobel dafa tuub ci li mu def ci marché Ocass Cheikh Bara Ndiaye dafa tuub ci la mu wax ci suñu plateau sëñ dañoo tuub génn ci internet bi wax carrément ci réseaux sociaux yi ni tuub nañ yow kenn déglu ba noppi nga nga nga ñu lay tudd di tudd Mamour Diarra nga mun a taxaw wax lii sëñ Tuubaa mboolem ku bokk ci Mamour Diarra tey jii rek wér na ne am na lu ko naqari ne nga jàng nga téere sëñ bi waaw bii mooy sa ñaareelu yoon wax nga leen sëñ Muntaxa di wax ba naan bu fekkee moo ci dugaleen boppam xoolal baat boobu rek man nag naa la jox tey lu leer nañ lu dañ ndax man gënuma jege sëñ Tuubaa bul ma weddi nag booy weddi weddi sëñ bi moo wax sëñ yéri jaxate ko imta zëjte bii yéri mu ne ko mbàkke mu ne ko imta zëjte bii xatta anna man jaraxaka yasilu dam yi wa man jaraxani yasilu damuk du dégg nga arab firil loolu jaxasoon waag yow bu ko la jam nga na sëdra koo jamono sëdra tey laa ko mos a wax yaa tax Sëriñ Tuubaa ñi ko boole loon du jaamukati yàlla ordinaire dalla alayya al ulama man la yazalu quwati wa xawliya ajaabani xayru baaqin fii qad tooba kulli a raqa bi ma lii qaad ak tooba ñaari bayt yoo xam ne benn bu ci nekk day day refléter tawhid lu mu la wax rek ni la yàlla bu ko defal ajaabani xayru baaqin fii qad ñi des ñëpp muy ci des fi des waaye ajaabani xayru baaqin ñu dellaa la yël ulama wal awliya ñoo ñee toppoon Sëñ Tuubaa ñuy sunu maam yooyee ku jëkk a topp du ñu woon ay nit yu ordinaire te loolu ku mu neex nga wedd di ku mu neex nga gëm kenn ku ci nekk demoon nga bay xeeñ yàlla di deeyaale yàlla ñu leen di dox ko doomi soxna ñuy jàkk alxuraan di jàmm yàlla Sëñ Tuubaa toog lu yëgg ñu nekk fi am ci ñu ko magoon sax mu ñëw ñoom ñëpp yàlla di leen joxañ leen waaye ñu li ma dem leen ñoom ñëpp ñu nangu ko ànd ca xol bu sedd tof ci ginnaaw mu ni leen xafituma sinat anit dafatiri fala takun an xidmati bi fatiri loolu nag man sama maam si njiri jaxati moo ko firi xafitu ma sinat anit dafatiri fala takun an xidmati bi fatiri si njiri dégg naa da wax naan dem leen jébbalu ji sama sëriñ li mu yor nekkul ci ay téere yéen fóori yii nag ku wedd ne maa la raw yéen doomi soxna yi nan dem ci faatihatul kitaab rek ma wax looloo xamul te teewuma jiblu kooku boo ko bëggee tëkkaleeg te mu wax la ne li may def ci nit mbooloo topp ko julli ñaar raaka ma gën a jafe nga sëtu ci Maam Mor Jaara mën a taxaw wax li nit ñi leen di dégg man de su doon ma ne bu subaa bu ma tuubul xaru walla iyaasu billaah yàlla na ci yàlla musal ndax koo gis bu doon keneen la ko wax ko xam du ma ko jitteelu toftoo ma ko sax bu doon keneen toftoo waaye yow waaw sëñ Abdul Ahad wax lu fii di koo xam ne jomom wala fegal looy ragal jomom fegal nañu ko lu nu yóotu ngorom may nañu ko nga mën a taxaw wax lii yow mu du ay sa mbàkk bett waaw ba fu bett di yem foofu laa war a mujj samay wax waaye dara nag dara lañ dul wàññi daa yokk nga mu gone yi sax ndax lu mel nii day tax day jàjjat ba nit ñi jugaat sax waxaat yu démb yi fàttali ko ngir ñi gën a amaat passif waaw kon yaakaar naa ni euh, fii laay yemale waxtaan bi li may wax rek ci ñi nga xam ne ñoom lañ doon dindi mbedd yi léeg-léeg ñu interview leen kuñ ci tàllal ti micro bu dee Touba la wala xew-xew yoon murit bala ngay yëkkati si kaddu am na ci journaliste yoo xam ñoo xam du ñuy journaliste ñoo gi yow mi lay laaj yéen a yem tanewuñ la du ñëpp waaye am na ñoo xam tariwuñ la laaj bi ñu lay laaj rek bu ñu la ko laajee xoolal ndax lii war nga ko tontu wala war a ko tontu am na yoo xam sax bu ñu la ko laajee mbécc war na jaate ndax yaakaar naa ne jàkkaarloo nit ni jàng xam am xam xam lan mooy communication xam lan mooy déontologie ngay poser yenn question yi yow mi ko posé it boo ci tontoo yàgg moom yem te yoon mu dafa am lu mu laaj boo xamul li ngay wax te boo ko waxee mu nar a nee ko man suñ jàllal ci kanam te loolu bari na luy xew micro yi ñuy def yëpp bu ci liggéey bi leen nga dégg ñu laaj ci koo xam ne la buy wax waaw dañoo bëgg léegi bu ñu jëlee fi ñu jox ñu place waaw bi nga ñëwee Tuubaa ñu jox la kër nga dëkk fa ak yi ci ànd yëpp suñ Tuubaa jegee la nii mbedd mi ñu bàyyi ko fi ne ci oto yi jaar nañ ko xàll bu ambulance amee bu magal amee nangam nga teg ci léegi nga ni bu ñu ma fi jëlee sëñ bi noo ngi xaar mu tudd feneen loolu jërut a wax sëñ bi moom fu ñu war a wutal nit dëgg waaye taxaw ci micro mel ni loo xam day force mi kenn dëkkaloowu ci kenn kenn jaayluwu ci kenn am kon noo ngi ñaanal commerçant yeeg ñiy góorgóorlu ñëpp yàlla nañu seen defal buddi xéwal waaye nag nañ waxante dëgg ndigal bu jotee ba noppi boo koy exécuté di ko def da nga koy rafetal waaye def ko ba noppi nag boole ci wax joo xam ne kenn xamul lu doon loolu da ngay yàqal sa bopp rek ndax nit ñi dinañ la gis xam ne diw de moo nekk ne te yow kenn ngay doon téeméeri junni nit kenn ci rek nee na waaw yow ngay kenn rek naan nanga nangam soo ko waxee ba noppi yaa ci yàqu ñi si moom am na ñoo xam bu sëñ bi joxee ndigal balaa bàyyi feel yi ñoom jël leen seen bagage lu mel ni daral gi ci daru yoonu daru ñoom ci àllarba boobu lañu jël seen i bagage ñoom bàyyi feel yi ñoom ñu ànd ak moom di liggéey sëñ bi yoon mu dafa am spécificité dafa am lu mu jagalu kenn amul xam ngeen lii ngeen gis muy ay bulldozer ak i quatre ni ay Baye Fall lañ ñoom dañoo suppaliku Baye Euh, loolu yaakaar naa ni ku mu doyul dara lootu doy dañoo gëj toog lool moo tax waxtaan bi xaw a gudd waaye yaakaar naa rek liñ ci jub mooy laabiri suñu bopp laabiri ñëpp pour ñu xamaat dëgg dëgg dëgg ni ñu nun yoon murit dana war a en alerte 24 heures sur 24 nag bu ko waxee bu kenn defe ne aw ayam déedéet maanaam lu ñëw rek ñu dégg ko xool ni ñu koy réglé loolu moom suñ bi def na ko waaw ka nekk kuli pakk kuli bantaak ka nekk fuutaak ka nekk Géejawaay ka nekk Sibassor rek ka nekk Bounkiling fu ay man a nekk boo déggee mu tudd ko dama lay xam ne weesu naa yi moo weesu ay tubaab yi weesu ak Thiès ak Dakar ñenn ñi laay wax ja ca ginnaaw pour war xam ne moo leen waaye waaye bokk yi nan xam suñu bopp ay waay ji ngir yàlla nan xam ne suñ tubaab defal xam lii li ñu yàlla defal sëñ bi lii Zahir sax xanaa nag waroon na ko Zahir si ñu gis rek réalisation yii loo xam ne daanaka kenn kenn mun koor gaa ngi ni ñëw bàyyi faale day mel ni bu jógee ci li ko da nga naan xanaa ñii fu ñu nekkoon wala dañuy loxus yàgg naa leen ko wax fii ni leen ay entité ngi ci biir yoonu bi boo xam ne benn waxagu ci benn deful dara ñi xamul na xamuñu mën nañu toog ci réseaux sociaux yi di contesté walla ñuy wax wala dër waaye ku xam te am sa sa bopp sa ndox na ci da xam ne Sëriñ Tuubaa liggéeyam bii du liggéeyu gone te gone mën na koo yàq mag sax fooy noppi mag mënu ko yàq ko ne mënu ko yàq loolu doo leen nañ kon noo ngi balax ñépp noo ngi ñëpp di balax ñëpp di ñaan yàlla mu def nu tawfiix yi nooy daje ngi ngërëmul sëriñ bi saa su nekk ci li mu bëgg daaxiran wa baatinan di ko ñaan li nu fas yéene ko ak lan yéeneegul te egseeguñ ko te moom mooy créé yéene ba nu ko xamal moom yàlla ba tax na di ko yéene yàlla nu ko defal ba li nu bëgg a liggéeyal Sëñ Tuubaa nu mën koo liggéeyal Sëñ Tuubaa te ànd ko bokki taalibe ak jullit yëpp jërë ngeen jëf jërëjëf jëf Cheikh Sarr Serigne Omar Sall Serigne Cheikh Lou yéen ñi nekk ci wàllu xarala yi jërë ngeen jëf Saxum Touba Saxum Touba Saxum Touba Saxum Touba mooy sunu net mooy leen suivre moom la Baye Fall yëpp di suivre di ko bàyyi xel waaw barke borom Tuubaa di ko bégee bu baax ñi ngi ñaan nag mu yokk waaw yi gën a kawe si di gën a yaatu waaw barke borom Tuubaa saxub Tuubaa saxub Tuubaa saxub سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني